li xew fii kat euh, xañ na lu bees la tey jii mu si gise ndax ñooñu ci ay boori 4 heures lan jot benn xabaar bu ne am na mbooloom jóge ci boori garage Dakar jëm si jumaay Touba nee na dañuy def si ab tawaaf. ñu daal di ñëw di leen xaar ba est-ce que Sëñ gi kilifa gi Sëñ Fàllu daay toog ak taxaw ak seen kilifa ñoom. dalal leen. laaj lu seen tànk ñu ne ñoom dañoo ñëw. ngir def si tawaaful ifaadati wër jumaa juróom-ñaari yoon dem ziar suñ faa na leen tawaaf moom xamuñu ko ci jumaa ji ndax jumaa ji du kaaba te borom wutiwul loolu daa bokk ci sarti aj màkka nga def tawaaf nga wër kaaba gi da caa bokk boo dugg si ak boo koy boo fi aj booy booy ziare si umra wala nga aj ñun nag fii di umrawukaay du ajukaay moo tax duñ bàyyi kenn nga fiy woote loo xam ne nii suñu tuwaa xamu ko diglewu ko te njëlbeen gi sax kilifa gi d'accord nañ ñun waaye xam nga mbooloo mi tamit dañ koy lay fipp ñu forcé wu ñu def ñu tam jaay fi jaar mooy alerte waa police ñu xëccoog ñoom xëccoog ñoom def pexe ba téye kilifa gi ak ñeent nit police ñëw jël leen ñu des ñoom ci biir ñu yóbbu lii mooy fi xew